seetaan nuyu sunu mbokk yi nga xamante ni ñoom la àndal tey euh, ci soirée bi euh, di 8 mars di bëccëg bi nga xamante ni dañ ko jël jagleel ko jigéen euh, tey ku xool plateau bi ñu àndal tey jigéen nañu ubbil li nga xamante ni mooy sunu soirée waaye tam public bi ñu àndal itam nekk public bu jigéen boo xamante ni ay jàmbaar lañu tey non stress la ñu wax ci li nga xamante ni moom mooy 8 mars bi ndax jigéen ñaa ngi ci géej gi jigéen ñaa ngi ci tool yi jigéen ñaa ngi ci ñaa ngi souffrir euh, te it nag mu doon loo xamante ni jàpp nañu ne daal bés biñ ñu jagleel bëccëg bi buñ ci defee ay plateau guddi gi war nañu ànd ak ñoom bégal leen ñu ànd nag tey ak Ndeye Fary Dieng muy doon daanaan boo xamante ni kenn dootu ko laajte ci biir Sénégal ak li ko wër waaye nag comme waa bitim réew dañ ko umpale loolu moo tax tey ñu indil leen ko mu indi thème bu am solo muy mbëggeel te jigéen ju ne boo sañoon rek ñu bëgg la kon li may def rek mooy dama koy bàyyi mu dellu fa mu nekkoon le temps que ma dalal beneen euh, ndaanaan boo xamante ni tey sama consultante lay doon ci biir seen émission 8 mars non stress comme ni ma ko waxee. tey nga ne lan ci li ci mbëggeel. ma di maram sala muy fa be mbëggeel ndaanaan comme ni ñu ko waxee rek euh, tey jii ci seen plateau 8 mars. waaye nag dafa ndeng guddi goo xamante ni animation bi duma ci doon man kenn ndax dañu am euh, koo xamante ni yaay la ci kër gi am koo xamante ni euh, doon na loo xamante ni ci 2STV kenn dootu ko werante su ma ko nee Ndombur Kumba Lawbeeg Daara Kumba Lawbe Sàkkal ma dun Madun Matar Kumba Lawbe Kumba Lawbe seen yaay Kumba Lawbe arama nga Bambay dañuy daal di xam fi ma jëm ñu daa tàccul ma rek ndaanaan li nga xamante ni tey moom laa àndal. Euh, ci seen plateau 8 mars mu yegg si rek ñu daal di moom ci li nga xamante ni moom mooy guddi gi tey ñooy bokk animation bi. koo koy jëm jaalam ci jaati. maa samba faal. bur gewal baa ngi nii. na ma fal bu mag bi. waaw waaw waaw waaw. maasàllaa. ndene borom jaata daalo. kula way kula way way garme jigéen ñi demb yaa jam jaalo jajji faal di dem xare mm. noonu la jigéen tey mel ni ñuy takkoo di dem xare ministre yaa ngi ci réew mi député yaa ngi ci réew mi magistrat yi ci réew mi góor baax na jigéen baax la su ko jéey dafa xeex ba bàyyib xeex bu taraasa ko la tar ni ko maa ngi ñëw kajoor la woo kajoor kajoor woo ngoone ngoone wax ak ñoom góor baax na jigéen baax na takkal ma téere yi baay solal ma mbubbum baay solal ma mbaxanam baay soxal leen ma fitaluk baay teg ma jibasu baay damay daal di dajeeg góor baax na jigéen baax na ngoone ànd ak kajoor yar nu ca xeex ba dajeeg buur taraasa ngoone rey na buur taraasa góor baax na jigéen baax sama doom sama xarit. mu xool di xarit tanoon faal mu tanoon. Diop dëgg la de Demba Ngoone borom ndaw naa sa ka yendu jooj jooja ka yendu daw xadi faal taal hmm. waaye bi ma fa jëm yendu naan ma samba gàcce maamam oh. borom fukki gasi gàcce ñaar waaw waaw joom gàcce ay sama doom bi ajaatu day fari dalal jàmm ku ma mas ni dalal jàmm dal nga jàmm waay tàccu leen day fari jàng tàccu leen day fari jàng tàccu leen day fari jàng mu wax a jeegi dëkk bi tàccu leen day fari jàng ndaanaan doomi ndaanaan man day sama xel daal tàmbali te nag non stress la wax ajaa Soda gannaaw ba nga nuyoo nuyoo bu am solo boobu li Ndeye Fary Dieng tey di doomi Tëngéej naka nga ko gisee a ah, ginnaaw ba nu musoo ci seytaane sant sunu ñaari waajur sant sama sëriñ ba sëriñ Saliou Mbàkke am sëriñ Touba ak sëriñ Mbàkke ba di nuyu nag senegaal gépp nag eh, bi mu yëkkatee woy wi ku nekk xam na ni ndaanaana woy tabarkàlla macha allah ndey fëri tëngéej la juddoo fala la fala fa la yoro waaye ndey fëri travers la monde entière la addinaa ko soxla macha allah ndax ñun nii di sunuy doom di suñuy set ñu woya woya woy tabarkàlla macha allah tey itam nag as gor du ñedd ba dem nag ba toog nag ba nooyiwaat ñun bu nu sañoon dañuy jóg jël bi dugg nag ci biir yëf yi te ñun doon man ñii macha man mën nañ ko géwél yaa ngi nii dafa woy léegi ma dégg mbaar ak njool li dégg mba fa nag mbëpp bi ma ci dugg sax teyu ko yàlla na nga yeggale sago demal mbayeen kii ci yoon bi la ko ko teg ci yoon la ko teg ci yoon la ko teg dañ koy bàyyi mu euh, woyaatal ñu deuxième morceau daal di koy teg ci yoon la temps que ñu waxaat beneen daanaan bi nga xamante ni moom lañu ñu war a dalalaat su ko defee dalal fii Ndeye Fary mu wax ñu itam ci guddi gi di 8 mars jigéen ñi ak li ñuy jànkonteel jigéen ñi ak li ñu bëgg waaye nag non stress laa wax nag stress bi ci kër gi yëpp nañ ko dindi tey fas yéene jàkkaarloo yéen rek ci 8 mars bi bëggeen leen ba ngeen kontaan yéen ñi nga xamante ni yéen ay téléspectateur seen chaîne télé bu njëkk ci wàllu caada seen chaîne leader muy la 2STV kon soxna Ndeye fëri Dieng ñu dem ngeen ko li Ndeye Fary indi waaye nag euh, comme ni ñu leen ko waxee rek guddi gi dañ ciy sargal bépp jigéen boo xamante ni jàmbaar nga waaye nag euh, ndey dafa ubbee lu am solo muy wàllu mbëggeel te gis nañu ne léegi ndey foo mbëggeel dafa doon loo xamante ni bari na ci dëkk bi te jigéen ñaa ngi ci souffrir waaye nag euh, ci loolu ci la ñuy ñëwee ak yow Ndeye lan moo la inspiré ci wayu mbëggeel. waaw. tubaarkàlla te jigéen ñi ci ñu bari na góor ñi dana ne stressé tan sooda moo tax ma li ma wax ci way wi yëpp sax xajul fii xajul ci way bi li may expliqué wu ci kuy fooy mbëggeel na nga xamul mbëggeel bi xajul fii dëgg la parce que da loo xam ne dañ ko seq ñeneen ñeneen war a jàll mhm. waaye li ma ci war a wax bari na mhm. ndax léegi da ngay tubaarkàlla da ngay nekk góor sonn buy bëgg a dee dang dangi buy bëgg a dee mm-hmm. bu ëllëgee mu daal di seeti leen daal lay fàtte fee mm-hmm. defee stress la bëgg a dëgg la te jigéen ñi sonn ci kër yi jigéen ñi daw nañu bay bëgg a mm-hmm. góor ñi lu ñu am bokk nañ ko góor ñi wax dëgg yàlla dëgg la kenn seetaanul sa njaboot la kenn seetaanul sama jëkkër nag dogu mi ci baytuwaa rek ma dund mi ci seeseen Eh, moo tax keroog ngàlle mi ci ba sañu damel moo tax ma ni ko na ñëpp mel ni bàyyu ndey sel dogo mel ni bàyyu maam jaar bu so wax dëgg yàlla ndax lu ma am jox na ma ko lu mu am lu ma am bàyyi na koog man tubaarkàlla te yor na ma yoroon ma nag aw ma day ma bàyyi moom rek laa am waaye sonalu ma benn yoon barke Serigne Touba te yoon Mbaye mii toog xam nga ni vie Mbaye lu ma bëgg moom la bëgg lu ma bëggul bëgg ko dogo mi ci bétuwaar may ñaari góor ñëpp mhm. me noonu ndax nag bëgg dafa metti ci xol lay jóge bëgg mbayam ci am dina dofloo nit ba cëgu ndara kam barke sëñ Fàllu Mbàkke dëgg la ba mu dof dëgg la dëgg la mbaa mu ñàkk loola fayda ba nit ñi def ne da dof mhm. moo tax ma ne man mbëggeel jàng naa ko fu ne jeex naa ko fu ne waaye li ma gis ci mbëggeel gisuma ko ci leneen mbëggeel géejug lëndëm la rek leer nekku ci gis nga boo xasee ba diig lab rek ngay def amul bànqaas eh. <laughs> macha allah euh, wax na dëgg mbëggeel dafa doon loo xam ne buñ ci dee détaillé euh, tey guddi guddi jeex waaye nag ni ñu ko waxee rek li ëppal solo jigéen mooy mbëggeel bu dee yaay la na ko doomam bëgg bu dee doom la na ko yaayam bëgg bu dee jëkkër la na ko euh, na bëgg jabaram yooyu dafa doon lu solo waaye Adja Soda man fi ma bëgg nga ñëwal ma fang Ndeye Fary ci benn question rek mooy fan la nekkoon. ah Ndeye Fary moom loo sax xam ne dinañ ko ko laaj. ndax moom Sénégal la ko soxla. ne ko fi ma nekkoon mën naa la ko wax li mu wone fii léegi rek mënoo mënoo mënoo alxames bu jot nga génn télévision samedi bu jot nga génn dimanche bu ne nga génn mhm. te doo woy woyu jaambur da doon gëstu da liggéey dëgg la da gëstu waaw kon danga doon gëstu waa gëstu daana caam ah, ah Tanso da waaw yow tubaarkàlla jëm jàlla ci jaaj dama ne la léegi ndaanaan mooy xam ndaanaan mhm. dëgg la yow xaw ma sentir nga fu ñu njëkk a daje wala déet kër Samsung boobu la njëkk a daje xew mhm. ah, may wër paate cun nga daanu keroog tekki kenn orga nga takk may ma ko ne ma dag ma daaneel dëgg la damaa dégg way moo sama yaay bokk ak bàyyi Samsung léegi nag ñuy daje nag ci milieu yi mhm. barke Seydina Mohamed nga nekk artiste bu ñàkk ki ñaan nit ku baax parce que ku mën a way rek mooy xam ku mën a way boo mënul way doo xam ku mën a way mhm. ndaanaan nga lu pare nag doon ndaanaan bu ñàkk ki ñaan dafa fekk ne mbir sunu borom moo koy dogal. Mhm. man bi ma amee fukki at ñett laa dala way mhm. xaj na mën na am média yi xamuñu ma mais tënk gi ma dëkk xam nañ ma. dëgg la xam naa ci dara. tubaar tubaarkàlla macha allah laaw la cat daal yoo xam nga yëpp. Mm, amaana xaj na am na foo xam ne yegguma fa mais maa ngi sant yàlla yonent bi Serigne Touba. loolu xam naa ci dara itam di samay ñaari waajur. am na solo di sant sama jëkkër. ndeysaan di sant tamit waa Tëngéej ji nekk sama ginnaaw yëpp nag mhm. ndax fu ma yendu ñu yendu fa loolu am na solo tey jii yaa ma limité yaa ma indiloo benn kaar dëgg la waaye ñu ma bàyyi sama sama kër xajundi fukki kaar dëgg la dëgg la Dieng kon waa Tëngéej tan sooda ñoo tax na mu ma dara ñoo tax wëriwu ma dara waaye ñoom xa mbay ma jaaga ak ñooñu sama yaay jooju barke yonent bi te kii xam na man du wax kenn du ma du ma wax lu newul ci man daal dëgg doone kenn sama yaay la gis nga bu ma fekkee ci milieu tëngeej mm. may woy lu mu doon def dagg na ko noonu la mel dootul wax a kenn mm-hmm. daf may déglu ma pare mu ne ma xale bi looy xool xale bi yow yaa mën a way yow doo jógee fii nga toog ah, dëgg la te nag tëngeej man maa fa gën a tële way mm-hmm. taan sooda nañ seet nañ duggaat bi tëngeej <laughs> mbaa waa tëngeej ndaanaan yaa nga tëngeej booy seet maa fa gën a tële xale yu woy rek a ne tënge loolu xam naa ñoom Fatou Gueye fay xale yu taasu ñoom wëli fay góor gi Njaay sama rakk vraiment daal tëngeej ay woykat rek fa nekk su ma lay wax daal man mi nga naan damaa mën a woy maa gën a niil ci tëngeej tëngeej ay woykat rek fa nekk <laughs> ah, jërëjëf Ndeye Dieng dégg ngeen ko tëngeej daanaan yaa nga fa ah, macha allah ni mu ko waxee waaye nag itam ah, lii rek lay jariñ tey bu ngeen xoolee suñu plateau bi daanaka ñu bees ñoo xamante ni jàpp nañu ne ñu ngi génne benn kaset wala nangam ak sangam ñoom la ñu indi waaye olof Ndiaye dafa lu am solo Adja Soda. Mm. mooy ku ci foog ne dara paase na boobu juum nga dara weesagul. waaye nag euh, comme da ngay sunu mag di sunu tey di 8 mars. Mm. jigéen ñi am lu ñuy jànkonteel Adja Soda loo ci sànni le temps que ñu dalal ki nga xamante ni mooy Xadima euh, ngoone mu installé wu moom tam ñëw defal ñu dara benn morceau boo xamante ni daf koy sargale jigéen ñi. Euh, xam nga Mbayang ñoxor rek moo neex a ñoqali tabarkalla macha allah jigéen ñi li ñuy daj ak li ñuy dund ak li ñuy jànkonteel loolu rek la mag ñi doon daj maam ya moom la yaay ya doon daj ñu ñii doon seeni yaay ak seeni maam ñu nit ñu koy daj dëgg la euh, jigéen mësul mën a dem ci àddina te àndul ak góor góor te mënul mës a dem ci àddina te àndul ak jigéen dañuy dem nag ba xale yi dañuy am yenn saa yi seen biir mal attendu. mal li ma koy teg mooy. Mhm. tabarkalla macha xale yi mën noo bëgg. Mhm. nangu noo sëy nangu nanoo liggéey. Mhm. waaye fiir nanu fi day yàq diggante. fiir day indi manque de confiance. dëgg la manque de confiance day raxas mbëggeel. mbëggeel boo ko raxasee ba mu set day jeex. day jeex bu jeexee loo bëggoon. ci mhm. àddina. Mhm. di ko bañ ñoom tool damay dégg sama benn euh, euh, euh, kilifa gu baax ma ni koo tere la mu bëgg. Mhm. dana la bañ lu toll nii la mu bëgg te du ko tee bëgg la mu bëgg. dëgg la <laughs> loolu nag. papa du Doudou Diarra. daan naan lu rëy. moo ko wax. xale yi. Euh, gis naa ñu xewal loo xam ni. mooy. mooy am sa borom kër boo mbayee boo ma saana am soxna. Mm-hmm. da nga ko yóbbu sa kër yaay. la boo ko yóbbu sa kër yaay teg ko sa loxol yaay. Mm-hmm. daan na am sa néeg yaay ñaari weer ñetti weer juróom benn weer. Mm-hmm. soog a ñëw sa kër. la bu ko defee ñu formé waat ko. jàngal ko àddina. jàngal ko nu muy waxe jàngal ko no muy tooge jàngal ko nu muy muñale jëkkëram nu muy xaare jëkkëram mottali ko ba mu mat mhm. léegi nag apartement yi boo takkee tey boo amee ñaar fukkat ak juróom mhm. ko am fukkat ak ñeent ngeen ànd dem wuti appartement bu ngeen matoo appartement ba bu ngeen xeexee appartement ba bu ngeen xuloo appartement ba bu ngeen meroo appartement ba nu jàmmee amee gisuma ko sëy nag ñetti pàcc la mhm. fanweeri at la fukki atu njëkk yi gune yi dañ koy sëy di xuloo ko xeex ñaanante baat may ma sama baat mu ni may naa la ko sa yaay jóg waa sa papa ni ko jàllal fay danga ngaa moom baat bi looy mayo da ngaa mayo sa sa dàll sax da nga ko moom tooga yoo jàpp sa ñaar ba mu tudd la xam nga loolu mag ñee ci jàpp dëgg la fukki at yi jeex mhm. ngeen dugg beneen fukki at bu muy ñaar ñaar fukkeelu at bu ko yàlla mottulee mhm. seen doom yi commencé juddu mhm. xale bu jigéen bi commencé dootul mën a dem ay tànkam diis gune yi bu jógee ñu laxasu ko mm. bu boobaa gune yi gune yi koy téye day occupé xale yi xam nga ñaar fukk yi jeex na fanweer yi ñëw nag mm. gune yi màgg war a fay bori nga war a noppali ko boo ko fa négul du la fa fekk dëgg la waaye xaarul dara dara du la fa fekk am nga solo am na solo lii moo tax mënuñu laa ñàkk ci sunu plateau Adja Soda ma Fall euh, wax naa leen ci kër gi la bokk di fi def émission bu am solo euh, ragal naa ni yéen a ngi koy bàyyi xel li ñuy def mooy balaa ñoo introduire at ki nga xamante nii tey moo yor sunu live maanaam intégralement moom moo ñuy animel soirée bi dañuy bàyyi soxna Xadima Ngoné rek moom tamit mu dugg indil ñu moom i tamit euh, benn morceau boo xamante ni daal lépp dafay jëm ci non stress bi ma leen wax ci commencement bi ndax stress baaxul biyee màkka yi ndax euh, non stress tey boo demee màkk defe naa ni fekk nga jigéen ñaa nga fa ñee ngi daan seen doole ñee ngi takk seen ndigg bëgg lu baax kon tey ni ma leen ko waxee rek non stress la waaye nag euh, dafa ñëw indi lu am solo Adja Soda ñaq jariñu coono du réer te ragal naa ni jigéen ñi coono yi nga xamante ni ñu ngi koy jànkonteel ci biir kër yi ni nga ko waxee démb ñoom maam doon ko jànkonteel tey seen coono réeru leen yàlla ñun bu sunu coono réer ñun ñi nga xamante ni ñoo tombeek euh, jànkonte googu nga xamante ni ñu ngi koy jànkonteel waaye li xadi way tey euh, damay wax ne sunu frère Bekaay Mbaye ñu ngi koy nuyu au passage tey kenn du fi galayaabe galayaabe góor galayaabe jigéen la tey moo tax tey ñu randal ko nële donc ñu ngi koy nuyu au passage di ko ziyaar di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm te yàlla may leen bisu góor nag ndax bés moom jigéen ñi rek a ko am amuñu la Eh, Mbayang Thiam ma maa delloo fu sori kii baayam dama liggéey ak moom théâtre national Daniel Sorano fanweeri at ak juróom-benn yoo xam ne ñooy xëy ñooy wàcc ñooy tukki ñooy dem nooy ñëw kii taxaw ñoo ko ngénte ji woon ndeyam ju rafet ju baax ja dafa woy lii moom woy na sax woy boppam waaye woy wii woy wee ko mag bàyyi ma woyoon loolu ma loolu dëgg la moom la ñuy éditionné ca Sorano mhm. mu mën a woy ba àddina xam ne mën naa woy ñu xëy ni dañu édition woykat yi seet leen histoire dama ci ñamal tuuti rek ndax fekkee war a njàmbat dëgg ñu ni dañuy dañuy seet ñi mën a woy ñu ma mënu la woy mhm. mu ëmb juróom-ñeenti déguisement elle était seule ku commencé Sorano ñu rangale nu artistes yëpp ku ne ku ne na nga woy ñu def édition contrôle ba buñuy ba ñuy rappel ba si ci man mangoone mu ëmb yëre yi ñëw ba jub Maurice Sonar Senghor suñu docteur bu baax bu tey bu am ba yërmande ak ñoom bu ba kër giro compagnie conso sampelesi mu yëg si booba mi ngi woy màkkaa di ngeen ji réew seede naa ni ah, yàllaa di buur mooy borom mindee fi may ma rek xarit duñ ci may dina ci may waaye maa ngi ñëw ñambaas yàqulub séer acca bu yëbbul rek xoolal sa baay keroog la ëmb yéere ñëw ba ca directeur général fent wooy bi ne ko tey leen te yaa jam yàllaa man ñaq jariñoo coono du réer daal di ëmbaat déguisement ya mhm. teg ko ci kanamam ni ko ku bàyyi naa ku bàyyiwul bàyyi na maa ngi dem woy yonent bi salaa salaam keroog la bàyyi soraano ah, loolu de la daan maa ngi ci ñaari baat ci way woow mu wax rek après ma ñëw ak yow ci ña ah, ci laaj bu am solo sa woyu bàyyi way um, woowu nga xamante ni moom la sa dox ne moom la sa bàyyi wayoon nga may ñi ci tuuti rek makkaa di ngeen gi réew makkaa gi di ngeen gi réew ndeysaan gi réew seede naa ko yàlla di buur te mooy mars gi lan ngay sànni kàddu rek sa mbokk jigéen ñi nga xamante ni ñu ngi toog di la seetaan te ni ko waxee ñaari loxoy takk tubéy waaye ñaari loxo mooy takk sër waaw jërëjëf Mbaye kontaan ci invitation bi di gërëm sama bàjjen Soda Mama nga xam ni moom lu muy laax rek laaxaale ma ci di la gërëm yow tamit di kontaan nag ci 2S di kontaan ci ji Njaay Mbaye foofu foog ma taxaw fa tuuti rek ngeen may ma rek cinq secondes rek ndax man dama gis 2S TV dama ci gis sama bopp dama ci gis sama bopp ñu bari tey bu ñu xamee Khadima Ngoné grâce à 2STV waaw donc maa ngi gërëm alaaj Ndiaye di ko ñaanal yàlla bàyyi Sala Ndiaye. ak Marème. ak Mareetu góoru Marème di ko ñaanal yàlla lu mën ren yàlla na mën déwén lu ko ëpp. waaw di ñaanal waa 2STV yëpp nag. Mm. képp ku fi nekk rek. ak kuy bëggee 2STV rek monde entier bi xam nga yéen ngi fu ne. dëgg la maa ngi gërëm ñëpp. dëgg la di gërëm nag ñiy toog fii ñëpp. di seetaan maa ngi leen di gërëm. ñaa ngi tool ya jigéen ñaa ngi fu nekk biro ya jigéen ñaa ngi fu nekk seetaanuñu seen jëkkër yi bu boroom kër yi defee téeméer ñu def ñaar téeméer nag waaw <laughs> artiste yi nga xam ne jàppale nañ ma Sidi mbay mi nga xam ne dama ñëw léegi boo ko nekko sii di maa ngi 2STV ñëwal fekk ma fi mu ñëw ñu dal di def ba mu baax ñoom Ibou gis nga ko nii di gërëm papa sama fecckat bi gis nga li fi def neexal ba mu neex macha allah def nañ ko ren yal nañ yàlla may ñu defek ay déwén yu bare bëree bëree allahumma amiin waaw di sargal jigéen ñëpp merci jigéen ñe fonk leen jigéen ñe jigéen ñe sargal leen jigéen ñe jërëjëf jërëjëf nañu fonk jigéen ñi nañu sargal jigéen ñi moom jigéen la ñu ngi koy sargal bu baax a baax di ko ñaanal yàlla moo xam li mu bëgg ci carrière am nag ko yàlla defal waaye nag ni ñu leen ko waxee rek 8 mars la ay jigéen la ñu àndal tey no stress ànd nag ak ay jigéen ñoo xamante ni gis ngeen ko tey ni ñu def solo àndandoo ak ñun gis seen bopp ci li nga xamante ni mooy la 2STV tey ci 8 mars bi ñu am noo xamante ni noonu la ñu yendoo ci màndargale ko bis bi euh, seen euh, représentante mi ngi nii toog dama koy bàyyi mu nuyoog mbokk yi rek présenté boppam su ko defee rek ñu am ñaari laaj yuñ ko laaj ci journée bi tey di 8 mars soxna si ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi sant yàlla bu baax. Mhm. di julli ci sangu-sangu yi muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari waajur di sant nag Cheikhul Khadim suñu la di ñaanal sëñ Cheikh di Maxtaar yàlla na fi yàgg te wér waaw soxna si man maa ngi tudd soxna Kiné Kandji waaw nekk coordinatrice pacte pacte nekk association bu mag. Mm-hmm. bu nekk benn baraag benn baraak nekk ay jigéen yu jàmbaaree ngi nii toog. Mm-hmm. jigéen yu xuus ca lëndëm gaa ngi nii. Mm-hmm. jigéen ñi xuus ca benn baraak bu lëndëm ga benn baraag mi nga xam ni kenn xamu leen buñ nee caaro yu yëmbal tëb benn baraak ne Malika Kër ma saar ñu jóg àndandoo di xeex loolu ndax bëgg mu jóg fi jigéen ñi jàmbaar yaa ngi nii bu ñu yeewu 4 heures du matin lañu ñu yeewu takk seeni sër di wuti lu ñu am bëgguñu dara loo xamante ni lewul lu lew rek la ñu bëgg fu ñu tollu ñu ngi góorgóorlu takk seen sër di liggéey wut lu ñu dimbali seen biir seen biir kër waaw kon donc dañu nekk jigéen ñoo xamante ni seetaanuñu seen borom kër ci yëf yi mm-hmm. euh, seetaanuñu itam seen njaboot euh, ku ni yàcc moom ñëpp la tane mm-hmm. euh, te defe naa ni jigéen ñi war nañ ko bañ ndax jagleel nañ ñu bés mm-hmm. te bëgguñu benn yoon sunu mbokki góor ñi reeñu waaye am na noo xamante ni noonu ngeen mandargaale journée 8 mars bi am yu am solo yoo xamante ni moom ngeen ci doon def mu doon une réussite loolu ngeen ci doon def lan la ñun jigéen ñi dañoo booloo. ndax dañoo wax ni booloo mooy doole. dëgg la moo tax ñun jigéen ñi benn baraag ba yëmbal ñu booloo doon benn. Mhm. booloo rek mooy doole. dëgg la ñu ne nañu xeex ba jigéen ñi fexe ba ñu xam lan mooy benn baraag ndax ñun xamuñu fuy benn baraag kenn xamul benn baraag. koo mhm. wax benn baraag yoro moo tax benn baraag siiw. dëgg la kenn xamul benn baraag. Mhm. ñu bëgg nag ñu xam ñu jox ñu suñu gëdd xam ñooy kan. ndax benn baraag lëndëm na. sonn nañ. amuñu ay ambulance seen poste de santé yi poste de santé ba ñu am. ñun ñoo góorgóorlu ba defal ko suñu bopp def ni. ah góorgóorlu. yéen a góorgóorlu ba def poste de santé ba defal sunu poste de santé ba am na fa. Mhm. waaye maternité ba. Mhm. poste de santé ba commité ba fa ne moo góor góorlu ba gérer ko. Mhm. ba tabax suñu maternité muy lu raar. kon donc xaaru leen ci état pour mu ñëw taxawu leen. donte ku leen ci fekk ngeen jël. waaw ku ñu ci fekk la ñu jël. Mhm. ndax amuñu équipement. Mhm. amuñu ambulance. Mhm. benn baraag dafa enclavé. ba nga xamante ni jigéen ñi bu ñu matoo guddi. ay charrette la ñuy yéeg pour ñëw maternité mu metti lool bu ñu waree bu ñu waree évacué hôpital aussi dañuy sonn ay coono la ñuy jànkonteel parce que amuñu ambulance. amu leen ay autorité yoo xamante ni ñu ngi nekk ci seen ginnaaw di leen jàppale ci loolu. waaw am nañ kenn kese ku ñu jàppale. ki nga xamante ni moo ñu encadré. muy suñu coordinateur. Mm-hmm. mu nekk Mame Libasse Ka moo nekk suñu coordinateur. waaw moom kese lañ gis ku ñuy jàppale de. Mm-hmm. parce que moom moo taxawoon ca élection 2009. Mm-hmm. ba ko jigéen ñi dee jàppale mu tàllal loxoom ne leen. maa ngi waat nit lu ma am ci maire bi duma ko lekk dinaa leen ko delloo. moom moom kese nag lañu gis koo xamante ni mu ñuy jàppale gisuñu keneen ku ñu jàppale. moom tamit mooy président comité de santé ba moo géré comité de santé ba ba yàlla def tey jii ñu tabax fa maternité maternité baa nga nee ñu ci jariñu ñuy sant yàlla nag di ñaan mu yokk di tàllal nag ñëpp loxo bëgg ku ñu jàppale nag ba ñu am ba ñu am ambulance. Adja Sodo loo ciy dolli ci li nga xamante ni moom la wax wala mm. laaj boo koy laaj. loolu Mbayang bala ma koy laaj dara damay kontaan ba pare ndax dañ ne ndimbal nañ ci fekk loxol boroom dëgg la te bu jigéen ñi. Mm-hmm. bu lëndamee it yéen lëndamu yeen yéen ñu jongo ba ngeen gis ngeen man nag Mbaye dama lay ñawal mbubu ñawal ma mbubu mhm. nan ko ñaw yónnee nu ko ak ah, ñii dinañ ko yónnee gëm naa ko jeex na léegi man bi nga nee soxna waga jëga nga tuttu mhm. euh, dafa am foo ma yóbbu soxna kinne kaañ bi sotti ceeg def ci waaw mooy mooy dan la naan sax mooy mooy soxna waga jaga waaw euh, maara ba ndey na mi ci Sambe mhm. muy jigéen ju baax ju mën a dimbalee fa mu ne defe naa mi ngi leen di dégg. Mm-hmm. ñu fii ci Patte d'Oie ci kër sëñ Modou Bousso Dieng ko bàyyi woon macha allah ñu koy nuyu mbay di ko siyaare. Mm-hmm. di ko jox suñu nuyoo di mu joxal nu ko waa Touba gépp mm-hmm. euh, tabarkalla macha allah yow danga dangaa dangaa tekki góom bi fi ñu amee garab bu ñu ko mën a faje borom réew mi soxnaam ñu koy wax soxna Marème Sall. gile ngoone ma ci séeréer gile faat ma kumba maa joor maram gaal go yii déglu de yii lay xaar yii lay seet mhm. mi koy dégg mhm. bu ko déggee mhm. dana ci wax bu ko déggul ko ko ko déggal soo ko waxee dina ci wax ndax moom kat nee na jigéen ñi ñoo ko intéressé ak guney ndaw yi ginnaaw nag bu nee jigéen ni xale bu nee xale ni jigéen ngeen de man benn baraag bu ñu ko dama defoon fa ne naa fa fekk ay état sekk fa nekk nag dama dem naan waa ana benn baraag ba <laughs> ñu ne ma du benn baraag tuddul mbayang danaa la fa yóbbu du benn baraag de léegi nag loolu ngeen di jàmbat addina sépp dégg nañ ko àddina sépp dinañ ci jàpp président de la république président Macky Sall dégg na ko Aminata Assane Tall dégg na ko présidente conseil économique social environnemental ma fàttim borom mbay daan àddina sépp dinañ leen jàppale ndax jàppale ma man mi jigéen ma wér jàppale ma mbayang man mi jigéen ma liggéey jàppale ma mbayang man mii ma jàppale sama doom bu ëllëgee nu noppal suñu borom kër loolu loolu góor d'accord na ca jigéen d'accord ca mag d'accord ca ndaw d'accord ca waaye comme nag ñun jigéen ñi noo bàkki am jom am yërmande te yéen a ngi ci waar wi Alaaji Njaay sax dégg na ko dëgg la te itam eh, mbayang mii dinaa ànd ak moom mu wax ko Marème Ndiaye. jeex na ak ñeneen ak ñeneen yéen seen jàngoro faju na. bu ngeen ñibbee waaw. <laughs> mbay ak ñi seen jàngoro faju na. seen jàngoro faju na yàgg na. macha allah bi ñu ko jaaree ci fi nga xamante ni mooy seen euh, chaîne leader. muy la 2STV. la télévision autrement la ñu wax. te it nag euh, tous les moyens sont réunis. Euh, pour que jigéen ñi sentir ci seen bopp surtout ci li nga xamante ni mooy wàllu télévision waaye lu jëm ci wàllu lancer message itam ñu ngi ciy taxaw rawatina guddi gi ñu nekk tey muy 8 mars di guddi gi ñu jar rek jagleel jigéen ñi soxna si lan ngay jeexalee le temps que ñu dalal suñu beneen daanaan may jeexale mooy kontaan <laughs> jërëjëf ndax tey damaa bég xam nga lu tax ma bég lu tax damaa jàkkaarloog yow waaw ak sama xarit bii nga xam ne dama koo bëgg ci sama xol ndeysaan ak xale bii doon way nga xam ni baayam dafa woyoon sama ndijaay Mbaye Diagne ca Tëngéej. dëgg la man doomi Tëngéej laa. dëgg la fekkaat aussi doomi Tëngéej. muy Ndeye Fary Dieng muy Ndeye loolu moo tax ma gën a kontaan. jërëjëf ndax télé bii mooy suñu télé ñun ñëpp moom la ñu seetaan. télé bii mooy suñu <laughs> télé ñun ñëpp la seetaan. dëgg la waaw. di gën a lancer message nag di gën a wax jigéen ñi nañ gën a góorgóorlu rek. Mm-hmm. xëcc bu dangul rek dina mas a dagg. dina mas a mm-hmm. dig yendoo teng waaw boo ko weddee ne ba <laughs> ndaxte pacte. Mhm. nekk na association bu mag boo xamante ni bii. ñaata nit ngeen. nekk nañ mille cent 1388 membres. membres membre waa mhm. kon da ngeen tasaaroo yemu leen rek benn baraak. am nañ membre ba Thiès. ba Thiès national la. waaw mhm. parce que pacte mooy pôle des. pôle des acteurs communautaire pour le travail et l'émergence au Sénégal. au Sénégal waaw Sénégal jëm kanam daal Sénégal jëm kanam. dàcc tàccul leen ma ko bu baax a baax. kontaan jëf merci beaucoup ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di jëfal képp koo xamante ni yaa ngi benn barak euh, yëmbal banlieue bi yëpp waaye di rendre un vibrant tomage nag euh, ñi nga xamante ni ñooy sunu femme de la diaspora yi kenn du ñoom. ñoo am jom. Euh, nee naa leen sedd bi boo demee Europe. wala nga dem Amérique wala nga dem bitim réew fépp foo xamante ni jigéen a nga fa. bu ñu xëyee ñoom ak góor ñi kenn du leen xàmmee hmm. ndax li ko waral mooy tenue bi benn la pantalon jean jacket kasket jël ko laxas sa bopp ndax sedd baa ngi lay bëgg rey li ko waral lan la jaboot li ko waral lan la taxawu borom kër li ko waral lan la bañ gaay dem ba ut loo xamante ni loo ñu samp fii Sénégal la kon ñoom tamit ci guddi gi ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax di leen ñaanal yàlla yàlla nañ dund ba bu déwénee mu fekk leen fii ci Sénégal ñu samp fi loo xamante ni ñoo koy moomal seen bopp ba dootuñu dem fenn li ñuy def mooy rek dañuy daal di dalal beneen daanaan aji jaara madame ok nday jaara yoro waaw xel day juum xel day fàtt kooku tekkiwul dara dégg yoro sama doom suñu doom ju baax ah yoro waay grâce ñëw fii toog leen yoro bu baax baax jërëjëf yoro ñu koy jaajëfal borom good morning di suñu frère di ko yaru voilà jërëjëf kon ñu bàyyi rek ki nga xamante ni euh, mooy euh, soxna nday jaara bu sëriñ fàllu di ok su ko defee mu yegsi rek ci li nga xamante ni moom la nar a def tey jii defe naa ni non stress bi may wax tey gis ngeen ko ndax euh, dara ñaawul daal lépp a neex tey amul kenn de stress démb ñooy tey ah. ñooy ñooy xëy ñuy ëllëg yeey jigéen ñi ci réew mi mu neex a neex tey mu ñamaañoo way wandeelu lan ñooy démb ñooy tey ñooy barki démb ñooy xal di ëllëg yeey jigéen ñee ko nga nit duf ne parité xam nga parité bi ci réew mi ki ko indi ci réew mi amel nañ ko waaye ki ci réew mi bu ko yàq jigéen ñi yooyoo parité tàccu leen doon fekk góor mu toog xoolal boo demee fekk jigéen ca wet ga lii yàgg na ñooy démb ñooy tey ñooy barki démb ñoo xal di ëllëg ñooy démb ñooy tey ñooy barki ñooy xëy di ëllëg eey ku ci ni ajaratu ndey gay mu alaaji Ibrahim ci am njàmbeeg maar xaasim ak say yaayu asu ci am eey moo nangoo liggéey tàccu leen lii yaayu ndey màgget ci am way way yàgg na Pape Seck daa maamam way way yàgg na Aïda Maar la yaayam tudd way way yàgg na ee eh, ñooy démb ñooy tay ñoo barki démb ñoo xal di ëllëg ee eh, ñooy démb ñooy tay ñooy barki démb ñooy xëy di ëllëg jigéen ñi ci yéen a bari yéen a nangoo liggéey dëgg la xoolal jigéen moomul bisam dong bis bu jigéen la loolu la yàlla dogal mën a jam aw fi tay fatal ko seqal teraanga xam na sa ngor yaa yéwén gore ajarat léegi ay damar sa ja daa sëy ba seey ma teg ci kumu aji xadi silla biram silla ak matar silla rijaali goor alaaji amet la sa baay tuddu kooku naqar rek la fi bàyyi waaye bàyyu fi benn gàcce loolu la yàlla ñee ñooy démb ñooy tay ñooy barki démb ñoo xal di ëllëg ñee ñooy démb ñooy tay ñooy barki démb ñooy xëy di ëllëg aji ni ma bëgge noonu laa la bëgge yaay yaayu mbeen ajaratu ami ñang sa yaay mi ngi pikin di faj buumu gàcce yi amet sa baay ba xoolal ba léegi noppeegunu baayam aji dekke si la mbokk baayam maam ku ma si la couturière bu ñaawul bi ma joob si la nga bokkal ndey baay séeri ajib ami ñang ma ca Italie ak jama si la ee ñooy démb ñooy tay ñooy barki démb ñoo xal di ëllëg ee ñooy démb ñooy tay ñooy barki démb ñooy xëy di ëllëg sama waajaa ngi nii biram si la ak ma tar si la di jaari yéri mbel góor tàccu leen lii foo daan fekku góor eey loxo yi daje. nga jigéen ca ga mu di defar. Ah. kër yi jigéen na ko yor. ana Marema Ndiaye mukk na ana Marema Ndiaye mukk na maar. yeey Marema Ndiaye dikk kuna. i eh, waay. alaaji Mbay Ndiaye sa la ci Pikine. mbokku ndeyam Xalifa Ndiaye. ak toog. eey xoolal yéenay jigéen ñi ci réew mi te kenn mënul ee eh, góor mënul jigéen mënul ba fi ngeen yaay yéen a ko gën yaay way sooda nee na Demba ak Maram Jaalo ak nee na Yaasin Nuuj Mama Sankare ba yàlla sàkkal yaay booy ba yàlla yaayi Sidi Waali faama si sa yaay mbokk moomu toog ak Faal benn borom benn baraak jigéen ñaa ngi nii yéen a nangoo liggéey ay waay waalo wuy waalo wuy waalo wuy waalo bu nuy wax jigéen dama ciy sentir sama bopp jigéen ñaa ngi door waar fajar la ñuy xëy di ku dee wàcc nekkuñu daray góor liggéey bi ñuy liggéey di ko sell la moo waral lii ay waay jigéen ñi Sénégal dëgg dëgg jàmbar ngeen ndeysaan yeey ndey jaara góor ñi xëyee liggéeyi eey góor ku la jox benn nga teg ci fukk loolu la yàlla dogal. yaa dëggal la. sooda jigéen ñey defar ba mu baax ne ci kër yi bokk ci mouvement yi bokk ci zawiya yi xoolal mouvement jigéen ñaa ngi ci réew mi kenn demul baleen. dëggal la. mbay faal séeri marem sooda way wi yàgg ne ko biram silla ak matar silla rijaali yéeri mbel góor ne biram silla yaay ya dëgg la ah, amey yaay ya dëgg la way way yaa gën a laay laay ya dëgg la lii dara dikkal eey eh, ana waa biram silla ak matar silla ay rijaali yéeri mbel yar tàccu leen lii nasaal bi yëngu lay lay lalaaw ana sabel wax ana sabel ay waay ana sabel ah! ay waay ana sabel waa kër biram si laak matar si la eri jaali eri mbel góor si aji xadi jaali eri mbel góor sa yaay ki ne nga bokkal yaay way way yaa gëna ma joom yaay naa leen non stress ndax sunu guddi la 8 mars ñoo ko moomal sunu bopp sunu bés la adduna bi yëpp di ko féete sunu xel dem nag ci mag ñu baax ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon ñoom ñëpp ñu di leen rendre hommage waaye nag di ñaanal ñi nga xamante ne ay mag lañ te nekk ci aar bi yàlla bàyyi leen fi ku ci mel ni Adja Xaar Mbay ma jaaga defe naa ni 2STV li muy wax ci xaar euh, du yem ñaanu mu yàlla mu yem tey waaye lu mu ci mënti doon itam yàlla na ko fekk di ci kaw lalam di ko seetaan di ci ñaanal képp koo xamante ni rek jaaroon nga soraanoo tey bu ngeen gisee tey nii nga xamante ni noon la defee guddi gi ànd ko ak mbokk yi dañu ànd ak ñoo xamante ni ñuy soog a door lañu parce que sunu yaay yi ñoom Adja Soda ak ñeneen ak ñeneen amatuñu lu ñuy prouver waaye ñii dañu nekk ndaanaan yoo xamante ni tey ku gis li nga xamante ni moom la ndey jaara bu sëriñ fàllu taasu rek da ngay daal di xam ne euh, macha allah fa taasu nekkoon ba tey ma nga fa Ndeye Diarra guddi gi nga xamante ni mooy guddi gi ñu jagleel jigéen ñi. waaw Mbaye. Euh, te ngay jigéen bokk sa borom kër ak say nawley jigéen yéen ñëpp ngeen nekk ci jàmm nekk ci salaam defe naa ne bokk na ci li nga xamante ni thème la ci 8 mars ndax jigéen léeg bokk daf koy jafe. jaral na ko mu tàngal diwlin tuur eh, nawlib jigéenam jaral na ko mu tàngal ndox mu tàng jaral na ko mu posane ko jaral na ko bi nga xamante ni nag bu suuf la muy ndukur le naa gas naa dës naa def lu ma neex pour yàqal ko kon bari na lu jigéen di jooy tey fii lañ koy waxee ci 8 mars bi te moroomu jigéenam ak ko teg dëgg la waaw mbayang ba ma sante yàlla julli ci yonante bi mhm. sant samay ñaari waajur sant sëriñ fàllu sama wasila maa ngi lay sant de sant sama yaay Soda Fall ndax tubaar fakàlla bi nga ma woowee ne ma 8 mars dama ne la mbayang jigéen ñi ah, chaque jour seen bés la amuñu benn bés kase dëgg la ndax tubaar la bés bu ne mhm. jigéen a nga ca matandite ba di am doom mhm. ay waajuram ak ay tàntaam dellu ca kër ga naan yàlla tiif mhm. léeg-léeg mu mucc yàlla def mu mucc léeg du mucc kon xam nga ni jigéen mooy lépp man dama ne jigéen wartaam benn bés ci at mi chaque jour bisu jigéen la dëgg la ndax nag li ma ne léegi ci taasu bi foo daan fekk góor mu toog yaa nga fa fekk léegi jigéen muy doxal. Mhm. ñun jigéen ñi na namunu dara. te Mbaye ma wax la dara. Mhm. xam nga ba àdduna sosoo ba tey mosoo dégg nday way nday baay way nday rek ngay dégg yaay saan rek. waaw tàcc leen loolu. saan nga dëgg. way baay saan amul fenn de way nday rek. Mhm, kon nga xam ne nday yi danoo sonn. dëgg la te danoo sëy te danoo jaamu seen borom kër. di ñaan yàlla fépp fu jigéen ne ba ci man mi yeeg ñi fi nekk ci saal beeg salon coiffeuse yeeg GIE yeeg yëpp dañuy wut rek lu ñu teral la seen doom yi. Mm-hmm. waaw te ku ne xam na ne xale mooy mu jéem réew. dëgg la am na ci samay œuvre bu ma xale bu ma naan yërëm leen ndaw ñi waaye xale yi nañ déggal mag ñi. Mm-hmm. ndax xale yi mu jéem réew. nañ mm-hmm. nangoo jàngi. kon Mbayang boo ma woo ci newal ñu naan soow. man boom ñëwal ñu naan soow boo eh. <laughs> nga naar nag mbayeg ci buuxante nag ñëwal ñu naan soow mm-hmm. ndax lépp daal jigéen la magasin yàlla yi sax mi ngi ko dénk jigéen ñi dëgg la xam nga ñun mënuñoo takk sëy déedéet mënunoo doon ilimaan mm-hmm. mënunoo doon wàlliwu mm-hmm. waaye ñi ko doon ñëpp jigéen ñee leen jur dëgg la te dama ne benn pombiteer bu yàqu bayang dafa yàq saako <laughs> benn jigéen bu baaxee rek baaxaaleel na jigéen ñëpp. dëgg la yal na nu yàlla xiir ci baax. amiin ak jaamu yàlla. amiin di profité nag di nuyu sama jëkkër alaaji okke mbub. waaw fa Ali Yaasin mi dammeen mayoon gor bi. <laughs> la neexee moom a waroon a ànd sax ci émission bi. waaw waaye dafa am empêchement. dëgg la di nuyu sama xale yu baax yi nga xam ne foo ma gis-gis maa ñoom. Mm-hmm. yow Mbayang di la sant di la gërëm daan sooda dafa baax dama koy fekk Sorano mais ñëpp la xajoo waa jigéen ñi daal ñoo ko yor Mbayang boo bëggee dégg dëgg ñoo ko yor jërëjëf loolu laa nangu tey jigéen ñee ko yor euh, tey it ku xool ni nga la plateau bi demee nga xam ni jigéen ñi ñoo ko yor donte nag sunu mbokki góor ñi nag comme ñooy caméraman yi ñooy tëgg ñooy bongoog nangam sàngam ñun ñoo ko yor nag waaye euh, saa yuñ ko yoree ku ne wala nga daje ku ko yor ku ne rek gëmal ne góor gu baax ko jox kon yàlla nañu yàlla dajale góor gu baax tax ma ni ko mbayang jamono jeex na ba jeex na ba pare eh, waaw ku ci mën lu baax del ci def lu baax a baax jeex na ba pare ee eh, jigéen ñi dee leen def lu baax waaw waaw na ni yéenante jàmm ndax jàmm yorum réew yaa ma yor bi loolu la a dogal jamono jeex na ba pare ku ci man lu baax bi yeboo nga ne ci lu baax rek jeex na ba pare jamono ah jeex na ba pare waaw waaw ci man lu baax da ci def lu baax a baax ndax jeex na ba pare yeey ma way sama yaay ndaak jaara paate mare ma kay kumba yaa gaak sa penda maam jaara sàmm xeetam dib daroobe waaw waaw sama yaay nga ca ga di def lu baax Mbàkke yi sunu nijaay ma nga Tuubaa di def lu baax waaye aji ñang mu ajaratu jobbeloo xoolal mi ngi door wàllam ci waar wi jeg ma su koo yab ba fee mu toog ajaratu jobbeloo sa yaay jeg ganul e jeg yabul ba fee mu toog koo bokkalul yaay yaa ko gën yaay woy wandeelu nga mbokk ndeyam Aïda Sylla ma ca Italie waaw waaw jërëjëf eey mbokk ndeyam Adama Gueye way wi yàgg na jamono mbaye jeex na ba pare ku mën lu baax bi boo nga ne lu baax rek jeex na ba pare jamono ma ko jërëjëf ba pare waaw waaw ku mën lu baax de lu baax kat jeex na ba pare eey suma taasoo ndaanaan laa dëgg la waaye xanga nga bu ma taasul ndaanaan laa may soxla jëkkuleeg sa la jaara borom Bakel Fado ajaratu Soda Faala nee na Demba nee na Maram Diallo ak nee na Yacine ajaratu Dabalaam Faal nga bokkal ndey ak way way yàgg xoolal yaay mati jaam doga ndaanaan li ci réew mi bu waxee gaa ñi déglu ko Soda nan rafetal soo te du gee koo jabi bilaay ni bokk te yem dagg nga ne ne gu yaay kenn du wax da la koy wax Papa Laay dama ne nan rafetal soo te duggee koo jabi jam jaalo jaaji faal ma samba deene faal xoolal neene neene maram jaalo ak neene yaasin nuuj sooda nan rafetal soo te duggee koo jabi ey jaara ala lu mu rëy rëy losoo day Ndongo Lo yal na ko yàlla teral. ndeysaan jërëjëf. Caam. Babel Demba Caam. waaw. ey borom ne waas dañ laa dénk sëñ Babacar mu jël ci ko yor taar bi borom bone carré bi e kuy taalibe Cheikh. sa loxo ca kaw. yaay yaayu Cheikh Tidiane loolu xoolal Mbayang loolu du cër bu ndaw yal na la yàlla yiir nag. la far la cat sunum xel sa yaaye liggéey bi affaire bi nday ci la jamono na ba pare way ni bakari dara ma def lu baax rek jeex ak sunu dëkk. bisikala bisikala Ndeye Fatou Beye yaayam moo ma jàppale. bisikala Ndeye Fatou Beye la yaayam tudd moo ma jàppale. waaye Abdoulaye Guissé ma nga Pikine di def lu baax mooy Serigne way wi yàgg na mbayam jamono jeex na ba pare ku man lu baax nekkal ci lu baax rek. jeex a ba pare jërëjëf jërëjëf ku ci mën lu baax def jeex na ba pare jërëjëf ah, jamono mosuma gis lii de waaw lii toj na de soda fii toj na wóor na yàlla macha allah yal na yàlla lafal la cat yàlla yeggale carrière bi yàlla bàyyi ak sa boroom kër jamono jeex na ba pare uh, loolu defe naa ni uh, uh, leer na nañ ci noppi mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan rawatina sunu mbokki jigéen ñi ñu defante lu baax yéeneente lu baax su ko defee rek yàlla mën ñu koo fay ndax nit ki fu mu toll sa jikko sa ginnaaw la ñu koy wax ku ko mën a dégg ne ay la yéwén mën naa ne kon yàlla na dal bépp jigéen boo xamante ni tey yaa ngi ci waar wi aji Ndey Jaara euh, jërëjëf kontaan bu baax gis ngeen ko soxna Ndey Jaara bu sëriñ Fàllu li nga xamante ni moom la yëkkati euh, mu am solo lool ni ma leen ko waxee rek nit ki fu mu toll sa jikko sa ginnaaw la ñu koy wax ku ko mën a dégg ne ay la yéwén mën naa ne am na jigéen ñoo xamante ni ñu ngi ci biir suuf tey yàlla na yàlla xare leen àjjana te ñi nga xamante ni ñoo fi des tey jigéen tey jàmbaari fàkki tëdd yàlla ñu fekkee lu bari ci seen njaboot waaye nag jaadu na ñooñu ñu bàyyi leen xel ndax am na ci ñoo xamante ni seen way ba tey mu ngi fi dootul fay li ñuy def mooy rek dañuy dalal beneen daanaan boo xamante ni Jurbel la jóge mu doon koo xamante ni macha allah duma ci wax wax ju bari moom tam xale la ku jar a jàppale la dañu koy may chance ndax 2STV wax naa leen ko bi nga xamante ni Euh, dafa dara leen amul artiste bu mag amul bu ndaw ñëpp a fi am seen place kon ñu dalal ma doom Jurbel jooju nga euh, xamante ni euh, sama bopp la mbayang waaw loolu rek la def mhm. ndax nun mhm. njaare mi ndëkk ak Touba mhm. waaye jaara mii toog waaw moom dafa bay waaram ci ëttu jigéen ñi dëgg la te sax sunu bis bi ñëwagul ndax yàlla daf ko booleeg okem bu mu ñëw ca kër ga fekk ok mu ñëw ca kër ga fekk ok yor ay nawleem yu mel ni moom ca kër ga mu ñëw nag uuf ñëpp jubóog ñëpp xaritoog ñëpp jël doomi uuf man miy wax a yow nii ak cër bi mu ma jox sama doom ju ma bokk ak baayam ndey ak baay sooda sooda mu Ablaay Faal moom lay wujjeel waaye tabarkàlla macha allah yàlla na nga yeggale sa yoon jërëjëf Mbayang kontaan nañ trop Thiam ñoo gën a kontaan Faal noonu nga xamante ni noonu nga ko defee rek accompagner ñu ci ñàkk ki ñaan lool nag ci li ngay def ni ma la dugalee sànq muy ndombur kumbalaw bi dafa doon loo xamante ni lu ma tàmm wax ci yow la ma may la man damaa gis maye gooma dara dama lay may lam bi ma marem yaay mayoon laa andi waaye ban jóg ci kanamu nit ñi ban jóg <laughs> jërëjëf kon ñu dalal beneen danaan euh, soxna si plateau bangoog yow it loo jëlee Jurbel jërëjëf Ibrahima Fall bu doon doon ak Sëriñ Tuuba ñun murit dañuy gàddu mbàttu tey yalwaaneey murit Sëriñ Bambay waaja woo Sëriñ Bambay waaja goro samba nga ñàkk sa yaay ma saani jaayoo may may dollar du mooy sama ñàkk sa yaay jël sa nijaay yooyu may may dollar du la te faloo reem noobal nga Mariama noobal la kay waay may ma junne du la te daago coro baay samba ñàkk sa yaay jël ma sa ni jaayo may ma ju daar du la te daago waaye madam jeng jeng saala coro maa jigéen saala coro way nda yaasin séri colonel bu mag balaay jiin Fatou Dieng Sala soo déggee baax yaay bu ko laajte xamal ni yaay borom chéri colonel bu mag bi laay jiin Fatou noobal nga Dieng Sala noobal nga kaay waay may ma junne du la tee daago waay coro baay samba ñàkk sa yaay jël sa nijaayooy may may dollar Mariama Mar Jaañ yaay abul la bokkal ndey ak jigéen yàlla moo ñu dooleel le 8 mars ba jigéen ñe njukkal naa sama yaay mbaar jol ngay maare maaro fa xanjigaan seen sargan sama yaay mbaa fa xanjigaan seen garme kaay waay may may junne dullate daago billaay coro baay sama nak sa yaay jëlu san nijaayooy may may dolaa dullate faloo waaye ndaanaan ndaanaan a ngi mamma sooda mamma faal na la yàlla yiir yal na la yàlla bàyyi ak ñun nga yàgg di ñu tette yaay yaay su yaay danu koy giin lay xoole sama yaay ja pen yaay Moustapha Thiamé sama yaay nit ku baax nga tàccu leen waay ana loxo loxo loxo loxo loxo mama mbayan caam mama yaa ngi jàppale artiste yi surtout ñun sun talent yi damay doogoy door ca bëgga teral yaay mama dama bëgga tekki ba sama yaay buur yàlla mi may jaam yàlla na ma ba man teral sama yaay yaay dafa sonn lool waaye gërëm naa sama baay bi du meñ deesum wal njëlum aji njaay faye yaayam baayi baayi mi ma tànnal yaay ju baax kii noo bal sama waay noo bal nga kaay waay may may ju nee jërëjëf macha allah indi nga démb waaye itam macha allah voix baa ngi fi Adja Soda xam nga tey dama buux euh, alaaji Bekaay ndax 8 euh, mars la ñu wax du ñu toog góor di ñu animel suñu soirée déedéet ñun ñoo koy nangul suñu bopp suñu paree buub suñuy bagage nag ndax xam ni euh, macha allah daal sunu bés la daal ñoo ko jëlal suñu bopp waaye kii day jeune talent waaye macha allah Adja Soda dama lay bàyyeek moom waaw man tabarkàlla macha allah bi mu wooyee. Mhm. law bee neexee jàngali pël. Mhm. ndax ku ragal doo woy. dëgg la waa ngi fi ak euh, yéen ji jëmm ji. Mhm. waaye bi mu wooyee ba déglu musique bi solo na ma ndax diggante woy ak solo artiste bu ne mën nga fay réer. waaye ku fa dugg te rek langa nga def bëgg ko mbaa nga mbaa nga boo ko doon soppoo ko bëgg koo jàng. Mm-hmm. la ma ca gën a neex nag mooy nee na dafa bëgg a teral yaay mm-hmm. loolu lu ma intéressé la dëgg la yaay tey ji yaaye moom bisi mm-hmm. jigéen ñooy moom bisi moom mii mu jóge ba te dëkkub Serigne Touba ba balay sa bu sëñ Mbàkke Maaram ñëw nag wutrance bindu yërmande ji nga xam ni moom la mbayang am ci xale yi am ko ci moom Alaaji Njaay am ko Marème Njaay am ko xala ak ñii bu ma limee dinaa juum mm-hmm. ñu ubbi nag bunt yi mm-hmm. ni 2STV yéen yéen a ko moom mm-hmm. nga jog rek dikk yéeg plateau bi ne dangaa bëgg a tere sa yaay maa ngi lay ñaanal yàlla na nga tere sa yaay amiin amiin ak képp ku bëgg a teral eh, nga borom kër wala amaguloo borom kër amoon naa waaye yàlla weddi amoon naa ana ku bëgg ku fëgg <laughs> utal naa la jëkkër nga <laughs> gaa yi bindu nañ de. yéen du ma yéen ñii ñëpp du ma ko yéen leen ko may yéen ñii Sidi Mbaye doo am yow doo am ah loolu doyul. waaw at déet sama càmmeñ Moussa Dieng daa bindu waaye maa bañ. non non ndax nabu seen fa mu wàccoon ba tey jógu fa. <laughs> Ah, te it nag ginnaaw yàlla euh, dafa doon ku mu ñal borom këram kon Moussa. yow moom effacé Moussa yow bokkoo dégg nga non partant. <laughs> jërëjëf. non stress la ñu wax. Euh, ngay xale di jeune talent ñu lay ñaanal yàlla yàlla na yàlla mottali carrière bi. ndey dafa am solo. sama xel sax day daal di dem ci Tigala Diallo moom Diallo waan di ma tabara yaasin borom ma nga neex ma nga toog di ma seetaan ma ngi koy ñaanal yàlla wér. asaka yéene ci li ma ko war a defal defaguma ko kon yàlla na ko fi yàlla bàyyi bàyyi fi bépp yaay. Euh, da ngeen a gis coono yaay ba tax ku jóg ne damaa bëgg a teral yaay mbër yeeg ñëpp lu waral loolu. di julli ci sangub sang yi mhm. maa ngi nuyu waa njaareem yëpp mhm. du nuyu waa Soprim mhm. du nuyu waa ndakaaru yëpp tata àdduna bi dafa metti te ñun suñu yaay yi danoo baax suñu yaay yi danoo sonn parce que boo gisee ku ne danga bëgg a teral yaayam du mbër yi rek a bëgg lu baax maman ñun suñu yaay lañu daj ñun dajuñu xaaj ba parce que dañ doon soq di wal di mm-hmm. root mm-hmm. te ñun am na robine am na lépp macha allah mm-hmm. kenn nekkatu cee goro kon su ma amee yaay man yëpp yaay baax mais man sama yaay dafa baax mbay sama yaay dafa jaay ba sonn kon ma déplacé wu jóge njaareem ñëw ndakaaru pour bëgg a liggéey damay ñaw lii ma sol maa ko ñaw damay ñaw su ma amee fu may woy woy su ma may xew bu may xew dem lépp pour yaay fan sa atelier jaay non sama kër laa ñëwee soo tegtal ma ko dinaa ñëw ñaw si. waaw boo dikkee Soprim ci wutu orange bi foo ne Mariama Ngom rek dinañ la ndi. dinaa ñëw ndax waa Soprim ñëpp a ma bëgg. ndeysaan Seydina Mohamed dana may ñawloo. xale bi gën ndaw su ma ko rombee danaan Mariama xam nga loolu day dolli jom. soo bàyyee say waajur doon jigéen. génn da nga war a wane jom. kon dangaa génn jóge njaareem. damaa jóge njaareem ñëw ndakaaru. nekkoo fi di aayee ka palaale déedéet nekkuma fi nag pour musique kese. dama dikk di daan sama doole bu weer dee ma am lu ma yóbbante sama yaay. doog a dem ci musique bi. jërëjëf man <laughs> jërëjëf. waa xam nga daan doole yaay nga nga nga tëdd ba midi jóg naan damay woy damay woy ca amoo ci loo jàpp wóorut. booy musique dëgg tey musique tey musique tey musique dëgg. Hmm, da ngay nelaw. <laughs> déedéet musique dafa seexlu. aar bii ngeen bëgg. te di ko def dafa seexlu. àndul ak tayel. àndul tilim àndul ngorontu àndul ak tuxantu àndul ak naanantu àndul ak jërëjëf boo ko teralee mu teral la ma di caam mii toog mhm. bi ma ko njëkkee yóbbu Sorano muy lu tuuti ma ko sama garaam bu bu ñëw ci ginnaaw gi ni ko jiitul bokk ak ndeyam ndey ak baay ni ko jiitul daf ma ni ah tante nag ma fii mënuma ma ne ko yow yow doo baax daal di koy bëmax moo tax keroog ba mu tëggee guddeem ga di anniversaire mu fees ba ñu ni dañuy def gise ferme dañuy tëj bunt yi damaa jooy sàmba xëy mi ci mbéy mbéy jeen saala ma ci sànnaar ki mi daan woy taayin dem mi biram benn faa biram doo ma leen daan bayloo aar bi bu ngeen ko teralee rek mu teral leen dafa seexlu waaye bu ngeen setee wecc di jóg fajar di julli bu ngeen amee jot julli yoor yoor mu seen njàpp gàntalee mbaa ngeen fàtte ni jàppoon ngeen ngeen jàppaat yeesal saa sama papa nee na ma subaa doo ma ni faal mu ni ma saa yoo jàppee njàppam bees takk nga gàllaaj bu bees te kuy jàpp fa mu toll du tal du tal sigaret mhm. looy def te bëgg koo bàyyi boole koo jàpp ak julli boo bëggee tere sa yaay bu dee dëgg ci yow fi nga ko waxee bu demee di nga fa toll yóbbu naa sama yaay màkka sellal ko rek ndeysaan am na solo jërëjëf yal na yàlla mottali yéeneem waaye dañu dalal koo xamante ni bala ñu koo laaj ñëpp dañ doon démarrer fee waaye moom ci wàllu boppam damay bëgg mu démarrer ci sama wet parce que moom tam daf may daaneel macha allah <laughs> waaw <laughs> kon ñu dalal ki nga xamante ni mooy Mati Thiam Dogo euh, ci guddi non stress euh, ci seen plateau 8 mars ñuy sargal jigéen ñi di wax na rek yàlla na yaa yàlla na yaay fekke lu bari waay parce que nag euh, sonnoon nañu metti woon na ni ko xale bi waxee Euh, ñun ñun sonn ñu suñuy jamono parce que fekk nañ fi robinet bi jëlee nañu fi lay suuf soog a dugg ci biir néeg yi am na ñoo xamante ni dund nañu fel yaag tàppaat ya bu nawet jotee nga wut sa paquetu toile daal di koy daaj ci kaw néeg bi ndax bañ mu senn yooyu yëpp sunu mag ñi dañ ko daan dund te terewul mbégte la daan doon ci seen néegu sëy kon ñun sonn ñu benn yoon waaye nag yàlla nañu fekkee lu baree bari mati maa ngi lay nuyu waaw Mbaye maa ngi lay nuyu mhm. di nuyu Soda Mama sama yaay yaa ngi toog ci saal bi di nuyu fans yi ak soppe yi ak képp kuy jigéen rek bàyyiwuma kenn Mati tey lan nga ñu indil ci guddi gi ci non stress bi waa ku nekk xam na ni man way naa jigéen ñi mm-hmm. muy way woo xam ne nag dem naa ci fu nekk mm-hmm. def naa ci lu nekk bésu jigéen bu nekk sargal naa ci jigéen dëgg la kon loolu rek laa indi tey pour bëggale ko képp ku fi nekk ak bépp jigéen ngeen tàccu Mati Thiam gungeel ma ko ci plate euh, fi nga xamante ni rek mooy fële euh, ca gaay fa gaay yi nekk le temps que Ndeye Fary Dieng sunu ndaanaan bi nga xamante ni moom la ñu dalal tey préparé wu su ko defee ñu àndandoog ñoom guddi gi jeexagul de te sunu yaram a ngi bëgg a tàng te it nag ku bëgg a gis ni ñuy dakkasee maak sooda topp ñu ba ci kanam tuuti kon ngeen tàccul ñu mati ah waaye ko da ngay woy man xanaa tey tey ñu gis lu ñu mësul a gis ngeen tàccu mati <laughs> Adja Soda Adja defe naa ni stress amul ci plateau bi tey. non non stress amul ci kër yi te it nag ni ma leen koy waxee ku ñu na ku jigéen na xam boppam la Mati Thiam doog a wax. loolu la wax de. ku ñu rey nar ku ne rek ñu xam suñu bopp. non non stress non la ñu wax. Mati kontaan nañu bu baax a baax. ci li nga indi ngay sargal jigéen ñi. dëgg la euh, surtout nag euh, sunu leader politique yi. Mm-hmm. ay jigéen lañu ñoom tamit ay jàmbaar lañu. dagg la de. femmes yi nga xamante ni itam dañu yor ay entreprise jiite leen. Mm-hmm. ñoom tamit ay jàmbaar lañu. ñi nga xamante ni ñu ngi daru seen ginnaaw jëkkër ñu bokk entreprise itam ay jàmbaar lañu parce que euh, dañuy olof Njaay dafay wax ne tàgge boo gis am na jàppal ma diw. te it nag euh, euh, kuy wàllu sa dëkkatagul tëggul te sunu kër gi dañ fay ànd ak jigéen joo xamante ni macha allah jàmbaari fàkk tëdd la mu dar borom këram ne dar man nag ba ñuy ndaw. li koy li ñu koy waxee xaw ma lan suskango mhm. ba suñu yoon yàlla tey macha allah mu ànd ak moom te delluwul ginnaaw benn yoon yiir ñu nag ànd ak ñun ci liggéey bi mhm. kon donc moom tamit ñu ngi koy rendre hommage ci guddi gi euh, Mati lan ngay tàggoo gaa yi Thiam Dogo ah. <laughs> dama fi doon woote non stress rek waaye man man sama bopp maa gën a ñàkk non stressé ndax tey moom euh, euh, noonu la 8 mars la ñu wax saa su ne rek ak facette bi ñu indi ci 8 mars te gis ngeen ko bëccëg bi yéen a ngi ci ànd ak sunuy journaliste ànd ci ak ñoo xamante ni def nañ ci plateau yi am solo lépp jëm ci wàllu jigéen waaye nag euh, Ndeye Fary la ñu introduire woon sànq mu indi lu am solo pareel na leen yeneen ñetti morceau yoo xamante ni dañ koy ànd ak moom nday nday ni nga cuuboo waat baax na de waaw cuubam baax na def ko mu baax rek dañuy wax ne eh, nday dañuy wax ne géer ñu baax ñi ñu ngi def lu baax ba tey de ginnaaw bu ma sante yàlla jullit ci Seydina Muhammad sang bu tedd ba ca Medina uhuh. borom bareeru or ba ca Medina sant sama ñaari waajur sant sama jëkkër rek maa ngi sant waat Tëngéej ji sama ginnaaw dëgg la tax nag ay ca leen ñu dem rek démb démb ñu jóg ànd ak man. Mhm. dafa neex. te toogaay bi yàgg lool moo ne mu indil benn kaar. te wax dëgg yàlla 9 ci suba la ñëw sama kër. ndax kii moo ne moom midi na la fekk fii. dëgg la ñu teel fee ñëw lool macha allah ñu di leen masawu waaye. waa tëgg 9h sama kër la leen fekk ñu toog. Uh-huh. kon ñooñu aw ma seen fay. dëgg la waaye nag caam. Hmm. géer ñu baax ñu doon def lu baax. barke Serigne Fallou Mbacke yaa sonn ba tey ñu ngi def lu baax. dëgg la pour ma xare nii génne naa nag seede la macha allah dix morso dëgg la. mu ngi ci marché bi. mu ngi mhm. daw ci rajo yi mi ngi daw ci télé yi. dëgg la te indil nga ñu clip bi léegi waa. te naa la clip bi léegi waa dis. dëgg la soo gisee loolu yaa sooda. Mhm. sama waa Tëngéej laa xamul nu ma leen def. dëgg que nag dañ maa bëgg te ki bëgg moo la sonal. waaye ki la bañ noppal na la. Mhm. sama fans yi daal. mbaye ñoo tax ma génne kaset waaye bu dul woon ñoom sax mhm. mën naa wax ne du ma génne kaset parce que mhm. macha allah kaar kaar kaar lu ci nit di wuti aar bi rek te nga ji sama ginnaaw defal nañ ma ko xam naa loolu jeng yaay Saliou Mbaye xam naa loolu bu baax ma kontaan mhm. ci lii nga ma woo bi nga ma ko waxee léegi trois jours am mais sama rakk nga dëgg la da ma fekk situation baa xam ne sax. Mhm. tey li may def nii mënuma ko. dëgg la mais damay ñëw bu fekkoon ni damay raam sax damay ñëw def si ko. ndax si dëgg ndax choix dafa fort. ndax nag. Mhm. choix bi nga am man caam. dëgg la loolu démb la sama rakk nga. Mhm. yaa soo de kii maag magam ñoo doon andi di way ak sama rakk jëlee. loolu ñoom rek ñoo nekkoon sama école ñoo ma daan awu. dëgg la dafa gaañu. dëgg la magam du bokkal ndey ak baay. wallaay yaay Maawa Fall sama doom ju jigéen jooju. yaay Maawa <laughs> sama doom ndey jooju nga xam ne daf ma bëggoon bëgg boo xam ne. wallaahi jéggi na dayoo. dëgg la dëgg-dëgg daal waa Tëngéej daal kontaan naa ci yéen. Mm-hmm. kontaan nit ñi nekk public bi yëpp. waa Nuraale kontaan naa ci yéen. jërëjëf Nuraale ngeen lu fort jërëjëf. Euh, dañ koy jaajëfal ci disponibilité bi wax na dëgg parce que groupe bi macha allah ñii ay doomam lañu ñii ay jarbaatam lañu ñii nekk ay euh, rakam Moussa Tama mi ngi nii Dieng saala ak ummi awukat be macha allah nga xam ne. li muy woy euh, mbayang duma la dëgg. waaye Oumy Dieng laa àndal. waaw muy sama rek. waaw Moussa Tama laa àndal. musaa Dieng muy sama rek. Mhm. Jibi Ndongo Dieng laa àndal muy sama rek Ndeye laa àndal muy sama rek. dëgg la Modou Seck Dieng laa àndal muy sama doom. dëgg la ma àndak nag sama doom yële nga xam ni. Mhm. waa Kër Mbasu Ngom lañu. dëgg la. Demba ko du mu ci déen. Mhm. sama waxu démb rek mooy sama waxu tey man fu ma jëm ci aar bi maa ngi yéen. barke yonant bi dëgg la. ndax seen baay moo ma bëgg ba mu jeex tàkk tàkk mbasu defe ne na ndey ja rek moo mën a way ci àdduna te mu won ma ko nag ba mu jeex tàkk ñii nag ma yemale leen kon ak doom ji ma jur sama biir parce que nag li ma wax léegi rek ku la bëgg moo la sonal mais ku la bañ noppal na na la dëgg la koo naan xaw ma nu ma koy def sama doom ji fu ma leen woo ñu wuyu su ma toogoon quatre heures du matin ma leen wooy téléphone ñu bàyyi lu ñuy def ne wuy sama dëgg la kon ñu bàyyi Ndeye ak plateau bi ni mu ko waxee rek euh, Abidou Ndiaye ma le xam nga ne góor gi njaay baayam. dëgg la ñu duppee ko Abi Ndiaye Abi baayam jur góor gi Ndiaye. waaye moo sekk mi toog ci wa tamit di tëggal tëggal góor gi Ndiaye. muy ñu koy tëggal ñoom waaw kii maag baay maa koy baay yu gaay baayam. mu nekk rek sotti ak def ci. dëgg la Issa Mbeng mi taxaw. Mm-hmm. di sama rakk démb. démb laa ko woo. démb laa ko woo waaye ba ma ko wooyee dafa laf mu jël yàppam yóbbu glacière. daal di luyee taxi ñëw wuy si ma léegi. jërëjëf. dama jali bii mhm. toog. Mhm. jali Ibrahima. sama CD bi ma génne six morceaux yi. Baabulaay mi kooraa fii moo si clavier moo. Kora mhm. Baabulaay Sisoxo. Baabulaay Banna Sisoxo. ma nekk fan sam nag daf ma bëgg. ci lu ma xam barke yonante bi. dëgg moo ci juróom-benni morceaux yi moom moo ko Kora waaye ñeenti morceaux yi ci des. moom jal yi mi toog moo ko kooraa démb laa ko woo ne ko nga ñëw ñu répété léegi ndax suba damay dem teel mu bàyyi soxlaam ñëw mu bàyyi soxlaam ñëw ndey dafa am lu tuuti lu ma ciy dolli rek muy que ne kaset bi nga génne taxul nga tedd ci aar bi da ngay mottali kay ndax kenn ku ci nekk am daray ndey jeng ci biir këram mais du teraanga yaa ngi koy xaar ci kaset bi parce que yàgg naa ak yow waaye nag dafa yàgg du tey démb la da nga teral sa ndey ki sama koñ ñu bokk ndar gu ndaw mu ànd ak sama yaay nga teral sa ndey ba mu ñaanal la ba dugg ci biir suuf kon ndey macha allah laaw la cat man li tax ma choisir la nee naa leen yaa moom Dakar ku mu doyul demal jël du la doy te nag dama laa doyloo ba indi la ci guddi gi tey li fi indi defe naa ni doon na loo xamante ni ndey nga ciy tegaat. lii nga ji ngay góobee lépp loole waajur doom fay la ko. am na solo ñi ko umpule woon itam gis nañu li mu indi ci guddi gi tey di mars. defe naa ni yegsi nañu ci période bi nga xamante ni euh, mooy sunu jeexitalu émission ñuy jaajëfal bu baax a baax suñuy partenaire ku ci mel ni Serigne Bassirou Ndiaye doon koo xamante ni moom dafa fonk jigéen ndax yaayam euh, jël ay produits indi lu ñu ko di produits yi muy liggéey waaye itam sargal ñu doon partenaire itam ak ñun ci euh, guddi gi waa diwaan décor gis ngeen ko daaw dañu àndoon ak ñoom ñoom tamit ñu dellu siwaat ren àndaat ak ñun kon ragal naa ni gisuñu réccuteef ci ànd bi nga xamante ni ñu ngi koy ànd ak la 2STV comme ni ko borom waxee la télévision autrement te ni ko olof Ndiaye waxaatee ba tey Adja Soda jinax ju génn ci pax dañ naan jinax jàng ne. booba tam daf caa toppaat rek. janeen lay tudd. janeen la rek. kon jaaraama 2STV mais rek mooy suur yi. jaaraama public bi nga xamante ni moom la ñu àndal. dëgg la jaaraama ñi nga xamante ni ñooy équipe technique bi. waaye jaaraama itam Ndiaye Abbas Sall ma yoroog euh, madame Cissé. moom itam defal ma nii may remercier bu baax itam xabbaan couture di Abdourahmane nekk fa la ci diwaanu Touba. defe naa gis ngeen ko écritel bi ci commencement bi lim ma defal meuf boo xamante ni meuf bu baax la kon maa ngi leen di remercier ñoom ñaar ñëpp muy Abdourahmane xabbaan di remercier artistes yi fi teew yëpp waaye spécialement itam Ndeye Fary Dieng mi ni ñu ko waxee indi groupe am àndandoo ak ñun bégal ñu ci guddi gi ci ñeenti morceau yoo xamante ni ñun ñëpp euh, kontaan nañu ci remercier ñoom Mati Thiam Dogo Khady Mangone sunu doom ji jóge Jurbel Ndey Jaara bu Sëriñ Fàllu ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di remercier remercier jigéen ñi nga xamante ne Adja Soda ñu ngi ci biir kër yi di leen massawu coono jigéen sonn na mm. jigéen dee na jigéen tay na surtout nag dañuy wax violence faite o femmes mbokk daf maa woo démb wax ma ne ma dañuy wax violence faite aux femmes ñu yaakaar ni dóor la wala damm loxo wala ñàkk jox dépense wala ñàkk toog ci biir kër gi wala toroxal ci ay nawle mais mu ne ma des na beneen violence mooy góor gi nga xamante ni 6 heures ci ngoon bërëb yi nga xamante ni fa la ñuy jaayee ñoll yëpp boo demee yaa ngi fekk seen oto gaare ah, nga yegg si du mën ki sa jabar dara dara sa jabar jël fat ci biir néeg sang nëpp nëppal bañ ko ko xamal hmm. dara ndax jigéen dafa gore bay naanum ñuluk dëgg la ndax am na ci loo xamante ni bëgg nga nit ñi xamal la ko Ah. waaye bu ca dara desu lu dul ki nga xamante ni moom ngay sagoo doo bëgg ku ko xamal dara hmm. kon yal na yàlla def jàmm ci kër yi yàlla def sutura ci kër yi yàlla def déggoo ci diggante soxna yi ak seeni borom kër njaboot gi yàlla na naat yàlla na njaboot yëpp fekk lépp en tout cas yàlla nañu ñu dund saa su ne rek ñuy toog nii di ko jàkkaarloo ak yéen di ko dàq stress Adja Soda ah xam nga lan ngay tàggoo mbokk yi li may tàggoo mooy hmm. lanu ubbee woon rek hmm. sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom lañu koy tàggoo ndax lépp moom la mhm. euh, non stress lañu wax mhm. waaye tamit encouragé dimbali sa bopp mhm. stress sax man naa dañ waaye yaay dimbali sa bopp nag dimbali sa boroom kër ba stress man a dañ te doo sonn gone yi duñu sonn tabarkalla macha allah ñuy gërëm borom kër gi di gërëm soxnaam di gërëm doomam ji nga xam ni xale bu tuuti la lekkul naanul noppalikuwul muy abdou sama set may nuyu xanata ak doom ji mare mu ndaw euh, loolu nga wax sànq rek mhm. moom laa bëgg a wax ci fii ma toog lii ma sol nii mhm. tabarkàlla macha allah maa ngi siyaaree sama sëriñ bu baax ba ca Tiwaawoon soxna yi de si di ko ñaanal yàlla na gudd fan ak njabootam ak sëriñam ak kullu jullit cërma ndey suñu borom lii ma sol xamu nu ma sax mbayam ki daami naag yu mel nii <laughs> waaye caane jaañ sursi mu ne ma comme soo da maama da ngay dem ca yëf ya mhm. cuub gi indil ma ko rek man maa koy def nii mhm. moo ko peintre ba noppi nag di ma defal yu baax a baax a baax a baax a baax mhm. euh, mbayang nun il faut que ñuy gërëm ni ñi ñu séqal réew mii ñu yàlla boole tabarkàlla macha allah boo jógee ñu jóg dañuy sot boo bëggee dem télévision ñu ñu jóg boo bëggee am émission ñu jóg xam nga lu ñu ci jublu bëgg a liggéey bëgg a am jom dimbali nit ñi ñëpp jàpp ci. dëgg la lu ngeen mas a def nag. Mm. baax na lu ngeen mas a def macha allah réussir na may nuyu nag Bécaye mbay sama doom. wante nag lii ngeen defal jigéen jigéen ñi moom ko. Mm-hmm. tabarkalla macha allah mm-hmm. xam nga ni jigéen ca këram ca néegam ca dépassam bu manqué ca dépassam bu tuuti. Mm-hmm. ca jaboo doomam ju si buru. doomam juy feeñal te jigéen kat mbay du paase njurum doom. bis boo ko weesoo sa doom matu mbaa sab goro nga dellu ca matuwaat nga da matuwaat mm-hmm. boo feralee bu sa doom bu góor amee doom nga bootaat bu sa doom bu jigéen amee doom nga bootaat may profitoo nag di nuyu sama doom yumma ak may mun a njaay di nuyu nag mm-hmm. sama caat ma soo da maree mbay ak boroom këram ba ak njabootam gi mm-hmm. di ñaan nag ñëpp nag ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di ñaan nag émission bi mbay yàlla nañ ko def ay ati ati ati ati ati ati ba dootul xaj fii allahumma amin borom kër gi li mu bëgg rek mooy mhm. li nga bëgg ma bëgg ko keneen bëgg ko dëgg la bégal jigéen ñi dëgg la bégal xale yi non stress non stress waaw jërëjëf non stress xam naa ne stressé woo ndax sa musóor ni nga ko defee nii danga ko langal rek jërëjëf kon euh, li ñuy def rek mooy bàyyi leen ak sunu grande sœur ñaanal ko yàlla sama dooma nga yàlla jàppale ko Fama Ndiaye yàlla taxawu ko di ci nuyu bu baax a baax soxna Oumy Dieng koor Alaaji Seer Jaañ moom itam di jàmbaar faama paate a kaddu gaa ngi noonu bu ñu demee ba ci kanam sa naataangoo yi nga dajal dinañ la fekk ci plateau bi ñu bokk bokk bàyyi rek maam menn far yàlla boole leen ci plateau bi faama samsu sooda maam dafa tudd léegi sama mag sama xarit muy El Hadj Mbay dëgg la ndax nag El Hadj Bekaay Mbay ak tonton maam les Thioune dëgg dama leen doon jële fii tëngee dañ doon jóge Ndakaar di ma fekk tëngee dëgg la tubaar tubaarkàlla macha allah may ànd ak ci ñoom ci nit ñu baax nii dëgg la may wax ne Bécaye Mbaye moo ma njëkk indi fii Galaya bi dëgg la muy ku baax moo ma njëkk invité Galaya be dëgg la làmb ji mu tëgg wooma lu muy def wooma noonu la mel daf ma bëgg man day fëri jàng loolu la teree ñëw ci eh, ci jëf yi da nga ragal say morom yow doo ñëw ci làmb ji nit ñi dañ lay laajte ma ne ko loolu daa am lu mu demee rek grand léegi laa dégg ak moom fii la kontaan ci moom ma gërëmit nag ndax nag ku gërëmul nit doo gërëm yàlla déedéet te bu fi yemee nag sax neex mm. dëgg la ndax dama ànd ak Alaaji Musaa Mbay ma ca njowaane ajjana ya bàyyi Medina Mbay lu géwal di géer di terale géwalam teralal na ma ko lu nit di may nit may na ma ko nit rek la ma mayu mm. dëgg la yàlla dogal tan sooda mu politique ba bàyyi politique ne ma xoolal xale yi politique te ngéej ku la neex nga ànd moom. waaw waaw ma ànd ak doomi ajaratu faaj géej àllaa ture. dëgg la. mi toog xam na may na ma oto may na ma kër may na ma. yóbbu na ma màkk embauché na ma ca mairie te def ma fonctionnaire. waaw bàyyi ma nga bàyyi ma nga te sama nijaay sam si. yaa ngay dégg. tan soda kon boo ñëwee ba toog ba fii waxoo ko leader ya fa nekk na ku ci mel ni Aline Fall Maar. Badara Mama Yacine. tous les leaders de Rufisque. yow nag yow nag Souleymane Ndoye ñëpp. yow maa ngi gërëm te ngeen leader yëpp. yow nag ngeen kenn sama noonu aw ma fa noonu leader yëpp may teral. leer na ma may sagal yal na leen yàlla sagal yal na seen taxawaay yàlla. xoola loolu jarul la wax ndax da nga rek démb nga ko wàcc. waaw Mbaye ci am ci yow confiance woo la. Mm-hmm. ndax naan day wàcc mbayang da leen di jógal macha allah ma laal bant rek. waaw nga jóg am ci yéene. dëgg la te mbayang mi ku mu woo nga wuyu la man bi ma woowee ni ma danga defama émission ma dama ko ni damay ñëw nga defama stage. ñetti semaine mënu ma ñëwoo rek bu ma la santee nga def su ma la teree nga bàyyi. waaye xam nga man tam dafa am koo xam ni faaw rek ma gërëm ko muy sama baay di sunu baay di Alaaji Mansour Mbaye ba ma ci jógee. Mm-hmm. faaw nu gërëm xaar mbay ma jaaga sunu yaay. Mm-hmm. waaye nag. tàgg bu na am na jàppal di waasu du ngoon a jàng ma tere nag yéen naan kal cim tabar yaay ball jum de ci samb yaay jur njéeme samb yaay ñaw koora sama waa ji birama nenta faal ma xuréja faal ma naar yi buum ñul ngoy loolu naa la may dara il faut ma ne la ci denjeeme hmm. denjeeme ma waaw Mbacke Fall ji mas ta dàq ku koy xaar daawul jànni ku koy ñaan di jaay mi jombaan lu am jox na ko jàmm ñu toog dasa yàlla ngorom way way mi tëdd nag yee naan kal wàcc naan ba dax bi ci mbaaw kor jëlee nu mbaaw ne yaay gan ama kumba xaat ngira na nga mbaaw wase ki neegi mbaaw ne ca sama yaay joor kuraat yaay ko jaaj njeeñeeme nga sa baay sel sab ma yaaya sa sam sab maam amintaano yaayam sama yaay joo xanaa xanaa xanaa xanaa ndakkay yaayam jombaan day wayi moo gën ci mbaaw war sa ama kumba la man bi ci mbaaw de ma jaay ndaw ñeeme sam yaay ñaaxaan bi de ñeeme jërëjëf ñu ñëw ci suñu dernier morceau ku ne am nga jaalige bu la neexee nga yéeg dañal koora biramaane anta koddoog biramaane anta faal ma xureeje faal ma naar ye camme ñal ngoy ndecce sama yaayi joor kooraan yaayi kooj yaañ sama waaji laay woo dud mbàkke sa baay sama yaayam aminata nooya yaayam yaakaar nooy baayam sama waaji may ma ma ñëw ci sama waa ji man dey manuma laa jiit waay damay nasar waay sama waajaaga fala